salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk yi internet Dakar Midi ah tey nag moom dañoo am benn sang boo xamante ne nii kenn du ko laajte kenn du ko naatable ci xam-xamam ci oyofam ci yaroom ci teeyam ci dalam soo ko gisee nag di nga laajte kii mooy kan sëñ Yoro Kandé moom lañ fi am tey ci seen émission bi nga xamante ne nii tey moo leen di wan lépp la nga xamante ne nii tey moo nëbboon ci réew mi tey kii ñu am tey macha allah ku yàlla may la muy borom xam-xam def mu gis soo ko bëggee ñëwal ci seen Yoro Kandé wax muy am soo ko bëggee ñëwal ci seen Yoro Kandé mooy ki nga xamante ne nii faj na gumba faj na lafañ fekk na nit koo xamante ne nii tëdd na ci lalu hôpitalam wala ci biir néegu lalam tëdd na bu mënulul boppam dara mu faj ko kii jàngoro buy dox ci doomu aadama saa boo leen jëflante di nga xam ne yàlla may na ko sëñ Yoro Kandé borom Casamance borom Sénégal borom fépp borom yàlla yàlla borom yàlla yàlla nag suñu yàlla yàlla mooy lépp lu muy wax su ko ci suñu borom bi subhaanahu wa taala la yàlla da ciy teg loxo sëñ Yoro Kandé dañ koy bàyyi mu nuyoo jàkkaarloog mbokk internet yi nuyoo wax ñu mooy kan bisimilah. salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant. ku nekk ak turam ak santam surtout yow mi nii sa wàllu bopp lay sant bu baax a baax ak si say liggéey dëgg-dëgg woon nga ma daal mbett daal li nga xam ne lu ma kii daal waaw te olof bi nag ngeen baal ma ci kaddu yi daal olof yi moom mooy loolu saw gambien la waaw gambi laa dëkk ay Casamance yàlla foofu la ma teg daal feetalee daal ma toog foofu waaw nag maa yëngatu ci lu mu ko wax maa ngi yëngati fépp la te jàngaroo moom yàlla la ak xam-xam yàlla la yàlla moo koy maye te nag àdduna dafa gudd tànk gàtt tànka soo ko xamee am na fi ngay feetoo ci sa wàllu mbir daal man su ma liggéey laa xam su ma liggéey laa xam ku nekk ak lu mu yor li nga ko jëfalante ak man lu ma yor ci jàmm ak salaam ku mën a ñëw ànd ak man ci jàmm ak salaam te ngay gis te du ma waxantu du ma fen dëgg te yàlla suñu boroom moo ñu tiim ñun ñëpp def ñu ay nañu moytu lu bari mu ngi dox ci réew mi waaw lu bari daal bari na trop ci réew mi lu may gis ak lu may dëgg ak lu may gis te fépp la man du may waxantu walla toog di di waa li nga xam ne mooy loolu duma nag yàlla mooy ñu may mm-hmm. te ndëgg-dëgg li nga ko waxee rek mm-hmm. waaw loola daal maa ngi lay ñaanal bu baax a baax mm-hmm. lay jox wér gu yaram ak warse gu bari defal la jàmm musal la ci lépp yaa barke yeneen bi waaw kooku mooy seen Yoro noonu la nuyoo muy koo xamante ne ni wax dëgg neex yàlla mooy li ma wax ci commencement bi euh, seen Yoro ku ne xam ne ne danga boole senegal ak Gambie ñu ne Sénégambia waaw ñu ne Sénégambia nga laal ci Gambie laal laal ci Sénégal mais yàlla dafa def tamit nga yëngu ci wàllu faj. social la man suma aada laa topp ak suma faj suma maam suma yaay suma maam suma baay ci ma baay am suma maam ci yaay mm-hmm. lépp. ay fajkati leen. kon faj mi da koo doon. man dema ko doonu man suma quatre personnes ñëpp ma famille la daal suma maam eh, suma yaay ku ma jur yaay am séril la ku ma jur suma papa yaay am ak papa am séril leen nag doonu ak dem jàng ko utti ko ci xam-xam bokkuñu. maanaam jàng nga donn nga. donn ko dama ko jàng woor ko doonu ko jëfaluma sumay mbokku kese dama woor ci biti utaat yeneen. mu sa biir famille daal am na xam-xam nga jàng fa dond fa ba pare génn dem wuti at dem génnaat ci beneen réew wuti ko jàngaat ñëwaat moo waral lii tey kon loolu kon loolu nekkul taalibeem doo taalibeem doo doon du si ñaari côté yëpp si ñetti koy yëpp laa ci mun ci ñetti koy yëpp maa ngi ci doon du ma ci ay waxantu. Mm-hmm. sëriñ bi nga xam ne. Mm-hmm. sëriñ Yero Kande. Mm-hmm. Gambi laa juddoo. foofu laa yaroo foofu laa màggee. génne dox ci réew mi. moo waral ma doonu ko ma jàng ko nekk taalibe taalibe bu ma nekkee dama ko ci teg ci yoon taalibe ku war a utti xam-xam dangay nekk ci dangay teg ci loko yàlla nga ànd ak sa wàllu bopp ak sa xam-xam doonu judduwaale la man dama dañ dañ judduwaale ak moom moo tax waral suma xam-xam mais la doon laaj ci réew mi euh, dafa bëri ay borom xam-xam yoo xam ne tey soo leen gisee maanaam si euh, seen wàllu melokaan ay grand mbubb la ñuy def def ay koppatoo téye ay kurus teg ay kaamil wut ay reen wut ay sunguf lépp ñu teg maanaam dañ koy décorer néeg bi wala ay dóor la wala boog maanaam maanaam xam-xam aajuwul ci loolu daal. aajuwul ci loolu xam-xam. xam-xam. Mm-hmm. diggantaan xam-xam bu njëkk ak bu tey mm-hmm. bu démb ak bu tey man bu démb bi laa am man bu tey bi du ma ci wax nekkuma ci bu tey. bu tey yi. muy dóor yi nañu moytu lu bari. Mm-hmm. lu ñuy dooree. Mm-hmm. bari na trop Sénégal. Mm-hmm. bari na fépp ci réew mi du Mali du Niger du Congo du kamero man damay gis ay sëriñ man dem naa jàng ko li Nigéria. te nga ne yow sëriñ nga Nigéria nga dem jàng sa baay nekkul sëriñ sa maam nekkul sëriñ mm. sa benn mbokk nekkul sëriñ nga dem toog ci benn melokaa sëriñ nga sàcca ci moom nga dem nga liggéeye looloolu ngay nax nit yi naxaate bi tey moo gën a bari si Sénégal mm. wax amut man sëriñ la lii lay faj man lii lay faj te man lii lay faj te jàngaro yu ñuy faj te gisuloo kenn kenn waxul la man sant sant naa ci yàlla. Mm-hmm. te tolof tolof yi ñoo gën a bari Sénégal. Mm-hmm. moo gën a bari ci réew mi tey. Mm-hmm. Serigne nag man du waxantu. léegi weddi gis. gis. weddi gis. Hmm? waaw loolu lañ may tuddee baawol weddi gis. baawol weddi gis. waa baawol nag dañ ma yóbbante ci moom parce que nee nañu liggéey boo xam ne suul nañ ko vingt ans. kii da koy sulli da koy da koy gis da koy sulli nit dina am liggéey ci yaramam pendant trente ans wala vingt ans kii bu jëflante moom da koy faj. loolu am na. ay téeméer téeméeri nit mun naa la liimal dëkk yooyu yëpp mun naa la liimal ci benn benn garab bi mu ngi fi man safara lay liggéey. safara kese du la jox sunguf hmm. duma la jox reen. alquran bi laa lay bindal ma jox la ko nga naan soo gisuloo ñetti fan woo ma xaj kaay soo ma gumul yoral sa xaalis du waxantu. garanti lu ma def man lu may def dama lay koy garanti fii ba dix ans loo gis ñëw hmm? alal jaraluma ma fenal doomi adama soo ma woo wóoluloo wóoluloo ma jalal sa xaalis nga téye ko ba nga gis résultat nga fay ma. mu ne ma sa njoro soo ko gisee. da yaakaar ne sax. da ngay yaakaar ne sax euh, <laughs> euh, sëriñu sëriñu courtier la mooy ñi nga xamante ni maanaam dañuy mbubboo sëriñ di di jëflante yeneen sëriñ parce que man ko man laaj ko lan moo a loolu mun ne ma oyofam dalam teeyam bëri xam-xamam boo ko gisee doo ko sax foogee sëriñ mu ma maanaam dalay dalay nax quoi moom moom soo ko gisee dalay nax. ma ne ko nag sëriñu dóorkat dafa am mu ne ma am na mu ne ma sëriñu courtier am na mu ne ma sëriñu sëriñu mbubboo am na kon maanaam seen wàllu métier mi yéen moom mu ngi yàqu. te lu ma la wax benn doomi pompiteer mooy yàqu téeméeri pompiteer ci biir saak benn nit mun a yàqal téeméeri nit li nga xamut xamoo ko buur ci jéem a dugg. soo si duggee yaa indi sa bopp tolof tolof xamal li nga xam defal li nga xam def li nga mun man duma sol garam boobu pantalon lay sol takk suma bata sol suma kaab bi duma sëriñ te soo ñëwee ma jëfalante ak yow te ñetti fan insha allah sa kattan borom bi soobee yàlla ñetti fan nga gis résultat soo gisuloo résultat woo ma xaj hmm? ñetti fan jàngaro bu nekk ci yow dinaa ko dindi feebar bu nekk ci yow dinaa ko dindi cat ak làmmiñ seytaane bari na ci dëkk bi rab bari na fii ci dëkk bi lu ne mu ngi ci dëkk bi as lépp loo jàngaro boo gis ci dëkk ci dëkk bi fii jabet dama koy faj te ñetti fan jabet duma la jox mais sëñ bi sëñ bi li nga wax ni rëy na de jabet laa la waa jabet mais ñi jabet ci dëkk bi bari na de bari na torop man ñu ma ci faj mu ngi fii ci kër gi fu ñu toog nii. jabet fii mu ngi fii ñetti fan laa leen faj fii bi itali Espagne Amérique France lépp fii laa koy génnee costé ko ci butéel yi Evian yi laa koy dugal yóbbu ko. moom jabet moom jabet ñetti fan laa lay wax nga naan ko ñetti fan butéel bu nekk nga tàggoo ak jabet soo gisuloo woo ma xaj. jabet ak lan ak lan ak lan ak lan ngay faj. tension. Hmm. hémorroïde. tension tamit da nga koy faj. asama. tuberculose. yaa ngi dégg. ballonnement. biir buy gonflé. émo biir buy di néewi di yëg di wàcc. Hmm. soo tëddee nelaw doo gaaw a nelaw. sa ngay jagasoo. sa yaram di tayal di diis. sa bopp di metti sa ndigg di métti sa tànka di métti si ñetti fan ma dindi la ko ma denc yow soo ko déggatee si sa si say mbir sa dund lu des si sa aduna woo ma xaj. ala li nga waxoon am na. am na du ma waxantu barke Seydina Muhammad wax fen jaraluma ma fenal doomi aadama ci sa alal. ci yoral sa xaalis ba nga gis sa reesu tàng fay ma liggéey bu ñu suul ci kër dama koy dindi. te benn fan soo ma weddee wooluloo ma dama lay jox ma ne la jëlal nga yóbbu ko nga gas ko nga bàyyi bi heure nanga ma nga gasal ko nga defal ko sa bopp ñetti fan weer soo gisuloo liggéey bi woo ma xaj day su génne ci biti yooyu yaa koy gisal sa bopp. man de tey laa jommi tey nag man tey man xam naa ne fi ma mos a jaar yëpp euh, mosumaa gis ku mel ni sëñ Yoro mi parce que sëñ Yoro mi li muy wax nii fu leer la ko teg. dof. da ngay faj dof. dof nga indil ma ko ma fajal la ko. ku tàqali ko ak sagoom carrément. kol ak sagoom carrément du ay waxantu man du ma waxantu. dof buy taxawaalu ci mbedd mi danga koy faj. ci mbedd mi nga soo ma ko indilee fii ma dugal ko fii ci nekk bi ñetti fan soo gisuloo di résultat woo ma xaj. Kanekunda famille Kanekunda dañuy rakasoo ci booli ma naan ndox boobu dama waxantu. ku jinne dugg. ku jinne dugg dinaa ko dindi. ku ngelaw ku ngelaw dugg naa ko dindi te ñetti fan. ku rab jàpp ku jàpp mu ngi nii toog fii mu ngi fii toog booy bi mu ngi fii kooku noonu booy bu njool boobu bu toog bu noonu. mu ngi nii fii laa ko faj butéel bii laa ko jox ñaari butel ñetti butel sant yàlla bu baax balaa may dem Touba. mu ngi si jàmm mu ngi si jàmm yàlla di lekk di naan. yaayam mu ngi fi papaam Thiès la dëkk décédé na yaayam moom kese la am. sa kayiti càng ci biiro wala nga bugg a dem États-Unis amuloo amuloo kayit wala sa kayit nga dem ñu bloqué ko ñëwal fii si Seri Yero Kandeh ma dinaa ko dindi sa kayit dañ koy jot. mais mais mais balaa nga faj da ngay seet nit ki ba xam lan ne ci moom wala wala da ñor a faj ko. damay seeta ba pare ma xam lu la dugg su ma xoolee ba pare listikaal lay xool ak petaaw. ah petaaw ngay seetee. petaaw lay seetee. ak listikaar ak listikaar ma seetal la. ma génn la sa sara nga dem nga gis résultat sa sara kese mun na la mun na la dimbal nga génnee nga génnee ci ci tolof tolof sa sara kese sa joxuma la safaral bi ngay sangoo naan bokku ci sangu safa sa ki kese sara kese duma la musuma duma musuma reyal nit ganaar ganaar bu na tuuti ganaar doo rey duma rey duma tuur deret ku mun a doon doo ko tuural dara doo ko rey. mun a tuur munta àdduna nekk ci kaw jàngaro suuf ci kaw suuf ku am problème. Mm. mosuma la rendal melentaan. même dof sax doo ko tuural. ndox du ma ma ko déreb laa la wax melentaan bu gën a tuuti. doo ko ko rey. te dama koy faj ba nga weer nga gis nga dox nga ñëw nga wax ma lii ak lii la. ñii ñi tuur deret nag di di def ay yëf. ak seen xam-xam la loolu loolu mbir seytaane la seytaane moo koy waral loolu seytaane moo la koy dugalal. Mm. nit jàngaro am nit boo ko xamee man du ma nelaw guddi comme mel na dix ans guddi du ma nelaw guddi fépp fu ma dem laaj leen ci biti lay fanaan ba fajir six heures lay dugg tëdd na si si matala bi mu ngi nii tëdda su nekkoon mu ngi dégg lu ma lay wax lu amoot yàlla bu ma fanaanoo tey. doo nelaw guddi ma nelaw guddi. da ci liggéeyu client ci nekk liggéey client yi. ku ñëw ci man maa ngi yor list bi yëpp mu ngi fii duma ci bind alquran abc un deux trois laa lay bindal ma xam sa lépp ma génn la sa sara jëfeluma ak li nga xam ne liggéey bu maanaa bu amul ci confiance mhm. duma ci dugg man lu ma munut alal jaralu ma ma dugg ci fen jaralu ma ma dugg ci lu ma lay wax ne lu leer nañ ci looy dugg day fekk nga mun ko ma mun ko maîtriser ko xam ko loo indil ma fii nit ku am jàngaro ñetti fan laa la may ñetti fan adduna bi ñetti fan la barke démb démb ak tey suba xamuloo mm-hmm. léegi su fekkee ne tey da am client boo xam ne daf la sori comme mu nekk Bawol wala mu nekk bitim réew wala mu nekk feneen ndax mun nga ko seet par par par distance. man dama lay seetaan dama seetal téléphone. doo seetee par téléphone. téléphone dama seetee par téléphone. parce que dafa am ku ma woo waxoon ci yoon bi ne ma soo yeggee sëñ bi boo ko dékkee sa micro woo ma téléphone ma xool ndax moom mun na seet ah doo seet par téléphone. yow ki ngay seetal foog mu ñëw. man mu may seetal bu may seetal su ma lay seetal dama lay seetal si listikaar si listikaar bi ñeenti téeméer lay ñeenti téeméer nga may envoyé su may numéro 78 119 74 29. Yero Kandé. waaw léegi comme que yàlla may na la euh, euh, macha allah si sa xam-xam des ndax comme comme yi war a am ci réew mi ci ay ay ay xeetu fitna wala ay musiba yu war a am ndax yooyu di nga tëdd bu guddi yàlla wan la ko. man damay tëdd ci lépp ma gis chaque jour dama koy wax nit suñ nekkoon fii nii ma woo leen ñoom yëpp ñu seede ma ñëpp seede ma mm-hmm. waaw day métti rek. ay day waree jàll day jàlla ay man lu may gis xëjut fii lu nekk ci ma bopp xëjut fii xëjut fii daal lu may gis man lu ma yàlla yi woon seexandoor na suma yaay quatre fois la see huit góor may neef ci neef man may caat ci góor waaw lu may gis xëjut est-ce que est-ce que que mun nga ñëw mun nga ñëw wax maanaam tuuti ci li la yàlla may nga koy gis maanaam ci ci wàllu réew mi ndax nguur gi coow li bëri na ñii ne nguur gi du neex ñii ne nguur gi dina neex ñii ne xam nga yow yow yow sa sa sa xam-xam ak sa gis-gis. loolu. ci wàllu nguur gi état bi. dëgg la lépp dëgg la daal ay li ngay gis sénégalais sénégalais moo neexut defar. defar waaw. nit yi soppeeleku àdduna bi soppeeleku wut gum-gum bi moo des ci nit yi maandu ñàkk maandu ak teey moo waral lépp eeral am nguur bi day neex de hmm? day neex trop nguuru Diomaye bi nga ne dina neex Diomaye bi bi bi ñu ko yàlla may nii hmm. dana neex trop ku yàkkamti yàkkule mais gëm nga ne dina neex. ne trop sensé man dina am lépp dina sensé. Hmm? wallahi azim suñu sensé suñ comportement rek adduna bi day day dem réew mi day dem ay suñ comportement ñun suñ comportement hmm. lañu war a sensé hmm. suñ ko sensé day lépp day baax waaw ku yàkkamti yàkkule soo maanuloo teeyuloo xamuloo sa bopp xamuloo sa tànk fi nga koy teg xamuloo li ngay wax xamuloo sa mbokk sa sa morom baay xamuloo sa morom yaay xamuloo sa morom mag xamuloo sa morom nijaay yaa ngi ci erreur. kon nit nañu yaru daal. yaru man duma dugg ci lu ma xamut lu ma dugg ci lu ma mënut lu ma mun laa lay wax lu leer nañ du ngóor du ballon soo ñëwee ma jox la sa kaa ma téye ko bal du dugg mais mais mais mais ma laaj la ñaari ñaari ñaari combat yu mag yu taxaw suñu kanam ndax tey yow su fekkoon ne tey euh, mën nga ñu ci wax lu leer loo xamante ne nii maanaam vaar du ci am. la mais lan lan nga simple nii comme sax nii la ma yàlla bindee yàlla nii la ma bindee su ma bindee yàlla moo lay topp bind topp ma mbir alal ma la mbir aduna. Mhm. adduna jaraluma ma fenal na mhm. man kes ak suma bameel su ma deyee du ma mhm. ànd ak kenn lu ma yor fii fii laa koy bàyyi nga ne toog nga ak Macky Sall pour pour mu pour mu jox la liggéey li jox ma liggéey ma faj doomam kooku xale bu góor bi sekkandaan la la tugg muy liggéey seeraas magam bu tudd wuyee baleera mu ngi yombol xam na ma bu liggéey bu lépp seen kër man maa ko génnee. mujj nga ko faj wala kooku dafa defoon xale bu góor boobu dafa dofoon. carrément man ma dem ma faj ko Casamance indi ko ba kër magam kër ma yombol fii yombol. ba weer na yor jabar yor ñaari doom góor re yàggut jabaram man maa ko dimbale ba jabaram am doom ñetteel bi muy taay yi lañ ko ngente. demoon naa ngente yi. waaw loolu loolu tamit am na benn femme bu mu cay yo yóbbante nee na ma ku ku ku jafee am doom bu ñëwee boo ko boo ko ñaanalee mu am doom. loolu moom une semaine une semaine. du paas jigéen am am doom musuloo am doom sax soo ñëwee ma may la doom musuloo am doom nga nga say cinq cinquante ans cinquante ans nga bëgg a doom ñëwal ci sëriñ Yoro Kandè ma jox la doom balaa at boobu di delloo soo amuloo doom woo ma xaj Brésil Guinée Bissau kooku Guinée Bissau la dëkk te hôpital lay liggéey docteur la cinquante ans la am deux mille deux mille vingt trois daaw laa dem ci moom gine Bissau fii laa jógee Ndakaar fii dem Guinée Bissau jógee gine Bissau ñëw Ndakaar direct romb bi ñoona su ma dëkk ñëw fii direct kooku man maa ko faj man la tuddee doom boobu gine Bissau la dëkk. te toog na ñaata at ñaata at amul doom. tàng cinquante juróom fukki at. juróom fukki at. ay waay caméraman ndax yaa ngi dégg lii. cinquante ans laa la wax cinquante ans jigéen la. soxna soosu toog na ko amul doom. amul doom ku ko kii numéro am mu ngi fi. mu ñëw nga faj ko ba mu wér. ba mu wér mu am doom mu am doom doom bu góor la taawoo. non sëñ bi joxe sa numéro téléphone. sama numéro sa téléphone 78 la. 119. 74 29. 78 119 74 29. baamtuwaat kon nga digal ko ndànk pour ñu koy jël. 78 78. waaw 119. 119. 74. 74. 29. 29 Yoro Kandè. benn numéro boobu numéro beneen numéro. am nga beneen numéro. Tigo bi. 76. 76. 79. 79. 5 ñaari 5. ñaari 5. 10 4. 10 ñaari 5. ñaari 5. mooy Yoro boobu mooy numéro Yoro ku la soxloo. mais mais mais mais yaa ngi aslem. ci marché bi. Mhm. marché aslem 5 ci marché bi. aslem 5 ci marché bi. marché bi. soo newul yaa ngi fan. su ma nekkul fii maa ngi baawoon. yaa ngi bawol. bawol Touba Ndiarène Bambey Xombol Nduuf. Tallen Ndangalma Louga. Podor. Tivaouane. Kaolack. Mbour. Fatick. Thiès. foo ma woowee ma uy la. kon daal yow Sénégal daal fépp ngay lay wor. sous région yi fu ne ngay dem. nekk fu ne lay doom. mais des fois nga jéggi frontière. na ma jóg frontière dugg suma dëkk. Gambie dem Guinée Mali. Guinée Mali Guinée Conakry Niger Burkina Faso Algérie Congo Cameroun Éthiopie Sierra Leone Côte d'Ivoire eh, Dubaï Libye Libéria lépp. damay wër du toog. te yooyu yëpp dox naa ci yooyu yëpp. fu ne dem fu ne fu naa ci. am am naa ci ay nit ay ci ay client am naa ci ay nit Mali jàng naa ci sept ans. Mali Mali Tombouctou laa nekkoon. Mm-hmm. Tombouctou. Mm-hmm. dem naa ci amul fu ma xamut ci te lu may wax ku mun a xam dëgg la mm-hmm. ci yow leer ci yow dëgg ci yow numéro ñu ma joxee jël numéro yi nga woote dana am lu leer foo toog ci àdduna bi sa garab dana ñëw bi fekk si la sa sa nekk soo mun loo dox ñëwal sa garab dina la fekk sa nekk fi nga tëdd sa mais am na ku ma yóbbante tamit nee na moom dafa am problème mu euh, jàmm dafa am problème mu jàmm diggante moom ak soxnaam parce que ñoom ñaar fu ñu toll ñu ngi xuloo ñu ngi xeex te moom bëggeewu ko noonu kooku kooku lan nga koy wax mu ñëw wala wala boo mu mu wala ci numéro bi. munut na ma woo su ma woowee danaa ko xoolal ban jàngoro moo ci nekk ban la ko moo ci nekk danaa ko dend te ñetti fan. maanaam borom sëy yi amul jàmm daal nañ la seet. borom yi ñu amul jàmm. walla nga nekk si jolof tolof. sa kattan. sa ngóor. jigéen. lépp lu may wax ci lu amu ci jigéen. xam ne lu may wax. jigéen ku du am doom. ñëwal nga seet Yoro Kandè. soobe yàlla ak yenente bi. balaa weer boobu di delluwaat nga boot sa doom. su dee góor. ñëwal ma jox la li ngay xam ne yooyu yaa koy utiliser sa bopp nga naanaal ko nga defal ko sa bopp dama lay jox ñetti aaya bi ngay xam ne danga koy jàngal sa bopp heure booy tëdd nga jànga ko nga raayoo ko sa yaram lu nekk ci yow dana deñ ñetti fan duma la jox benn safara aaya laa lay jox nga defal ko sa bopp. néew kattan néew kaw kattan yokk ngoor yokk awra lépp soo ñëwee yokkal la ko ba mu gudd li nga ko toll sëñ bi da ngay yokk awra <laughs> sénégalais yi loolu loolu yittal na leen de laa <laughs> <laughs> ilaaha illallaah sëñ baa ngi ne attention nee na day yokk awra waaw waaw maanaam bii pour pour maanaam ci ah waaw waaw butéel bii nee na butéel bi da nga koy naan la ilaaha illallah sama caméraman bi jëlal ma jëlal ma lii sañ baa ngi may jommal de nga ne bii bii bii. yokk awra loo ko ci. bii bii waaw gaaw a daanu. gaaw a daanu. diwoo ko si sa sa sa bagage booy tëdd suba ngoon sangu beset respecté ko bii danga koy suuroo butel bii naan la awra bii muy mooy néew kattan butéel bii wàllu jàngaro bu nekk si sa wàllu yaram mhm. seytaane bu nekk si sa wàllu yaram mhm. rab iblis seytaane lu munta nokk ci doomi aadama jàngaro tëju lépp mhm. cat lameñ ngay yaakaare mu yàqu foo dugg mu yàqu foo laal mu yàqu mu ne lu ma la wax rek ku am jàngaro woowal numéro ñu ma la jox. joxewaatal numéro bi ñu tàggatoo. 78. 78. 119. 119. 74. 74. 29. 29. 76. ñaari 5. ñaari 5. 10 4. 10 4. te marché Mali. jaajëfal yàlla na yàlla def. incha allah waaw ñu soxla woon lépp tey am nañ ko incha allah parce lii lañ tey ñun ñun ñun ci li ñuy dox mooy euh, borom xam-xam yi nga xamante ni dañoo simple toog seen ruq bëgguñu sax ku leen di wane wax dëgg neex yàlla doxoo sax ci domaine yi waaw parce que yii moom mosoo ko bëgg sax ku lay wane ci ci télévision yi ak ku lay jël sax ci ay émission wante amaana man li nga sëq ak man ak cër bi nga ma jox moo tax sax yow nga nangul ma ko waaw pour li tax ma koy leeral nag parce que kii nekkul koo xamante ne nii tele yi dañ koy wër wala day dem fu ne déedéet du sëriñ yooyu kii ruqam lay toog di def nit ñi di gis man de wax dëgg neex yàlla rëccu ma lu tax ma xam la te sama famille ak sama famille soxna tamit rëccuwuñ tamit lu tax ñu xam la xam nga kon ñu ngi lay ñaanal yàlla dafa la jàmm yàlla bàyyi la ak sa sago yàlla gën a wéral xam-xam bi yàlla gën a wéral cër yi yàlla may la gudd fan parce que tamit ñu ñu mel ni yow askanu Sénégal dañ leen a soxloo waaw parce que xam-xam bi nga am nii di ko partager ak doomu aadama yi ak sa xam-xam bi nga am di ci jaamu yàlla te yàlla rek tax tey bu la neexoon nga nekk sëriñ yooyu nga xam ne ay millions ngay laaj wala ay kër wala ay oto mais loolu lépp fekkul la ci yow macha allah sa lépp da nga ko simple te sa lépp ci jaamu yàlla nga ko teg kon yal la yàlla fayal boppam yal la yàlla taxaw yal la yàlla yokk numéro téléphone bi nag mu ngi noonu euh, yaakaar naa ne yéen a ko déggandoo képp koo xamante ne nii soxla nga sëñ Yoro mu baax mii. ci sa wàllu boo mun a ne moo xam commerçant nga moo xam joueur nga moo xam mbër nga moo xam waxkat nga moo xam télévision nga ne moo xam ci rajo nga ne moo xam ci loo mun a nekk ak ci domaine boo mun a ne di ak koo mun a doon soo bëggee lu wér péng si sa dundu ak lu leer naññ si sa dundu seetal sa yorom yi mu teg la ci yoon teg la ci lu leer nañ naññi lu dara dul dindi am nañ mbégte kontaan nañu ñu ngi leen di jox rendez-vous di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro incha allahu rabbi jërë ngeen jëf merci beaucoup jaajëf.